jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point 5 euh, seen émission petit métier di am samedi bu jot tres h 30 jàpp 14h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck euh, Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité Ousmane Diouf moom nag mu yëngatu ci lu jëm ci wàllum courtier ñu baree baree bari xam ko si mu dund ci nag expérience bu baree bari moom la ñu fas yéene seqal waxtaan Ousmane Diouf maa ngi lay nuyu. Jéle fay nañ la. di la nuyu waa Rewmi FM. Uh-huh. di leen ñaanal fan gudd fan ak jàmm ak xiiwal nuyu waa Sénégal yëpp rawatina waa zone de jërëjëf uh, Ousmane uh, Diouf uh, tey yow lañu invité am ci mbégte bu baax a baax Ousmane lu jëm ci wàllum courtier ci Sénégal liggéey boobu noonu yow tey boo ñu ko doon expliquer lan nga ñuy wax. bon ci côté courtage Sénégal bari risque yi ci nekk ban coono ci nekk aussi diggante locataires yi ak euh, courtage yi. borom kër yi. ak borom kër yi. Mhm. bari na ci aussi. d'accord c'est que miti na miti boo xamante ne jéggi na dayoo aussi ka fekk locataire bi seer na seeraay boo xamante ne ci jamono bi may wax ak yow. président de la république waroon na ci def ci yërmante diggante. ay askanam lam mante ba amee ci doomi aadama ak moromam rek kon jàmm dina gën a neex dund bi dina gën a neex d' accord mais euh, mais Ousmane euh, yow du caagi ne euh, wàllum euh, courtier rek ngay def ci kër yi mais lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum kër tamit loolu tamit euh, est-ce que am na ay risques waaw jëndum njaayu kër am na ay risques ci nekk des ngay gis li ñuy wax euh, njëndu jaayu kër mooy papier de délibération di ngay gis ku yor benn terre jaay ko trois personnes jaay ko trois personnes ak euh, da ngay gis ku am baay itam mooy yeneen baay yoo xamante ne foo baay ak yooyu c'est ça quoi bari na yës ci nekk moom macha allah. d'accord bari na ci nekk. mais mais loolu boo euh, mais boo si nekkee nag di nga di nga di nga si am benn expérience boo xam ne di nga xam kër gu ñu war a jaay ak kër gu ñu jaay. bon ba doon man moom à ah, Ousmane à ah, personne fekkente ne dama am client muy ñëw jëndi euh, kiy jaay terrain bi dama la woon terrain moom dama ko jënd ci mbed dama ko jënd ci grand place yow miy jënd ci terrain bi bàyyi la euh, dama lay proposer nga dem ci notaire bi xamante ne moom nga wóolu nga photocopier pièce d'identité bi ak euh, papier mooy terrain bi nga photocopier yi yëpp yóbbu ko ci notaire bi boo ko yóbbee ci sa notaire notaire boobu nag moo koy saytu fekkente ne terrain bi légal na dina la wax ba légalul itam dina la wax. mais yow Ousmane ndax am na jafe-jafe yoo su mosaa dund ci lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum terrain. waaw dund naa ci ay yoon yoon loolu moom bu ko ci nekkee moom mën nga ci dunda ay yoon am na benn terrain boo xamante ne benn waay moo ma woon léegi di koy jaay mais man ci sama bopp li ma demee ba xaw a ñaaw njorte ci njën ak jaay bi commission bi ñu ma ci joxoon ñoom xam naa peut-être moo waxee seen may dégg. man sama xaalis boobu ci wari boobu nekkoon foofu sax wetu kii bi nga dekk noonu zone de captage aussi foofu foofu laa denc woon xaalis bi lam bañ ñu di ko laal lam waxoon naa ko euh, gars yi xamante ne moo jënd terrain bi man noonu lii daal moom dellu sama xel ba ma sañoon nga dem ba domaine comme terrain bi fu mu nekkoon domaine foire moo ko yor da ngay dem ci domaine foire nga dem vérifier ko ci ay kilifa yu ko yor buñ la waxee diw moo ko moom kon mën nga ci àddu waaye nii nii nii nii nii bu ci àddu. ah yoo xam ne commission commission mu ngi yow commission bi yow commission bi la joxoon sax da nga koo denc ngir wóoluwoo ko. dama ko denc pour ma ko. xam ne ya jàpp nga ne euh, ëllëg leneen mën a si am xam ne bu ñu laajee xaalis bi nga mën koo génne. yàlla xam na ko. mais yow lan moo ci sa responsabilité est-ce que yow am nga ci benn responsabilité. ah am na ci responsabilité lam ëllëg itam dañu laa wax ne yow fekke woon nga ko mu fekk nangam ak nangam c'est ça bokk nga ci ci seen bi ndam yow yaa bokkoon nga ci boole bi bokkoon nga ci aussi ci ci ci ci transition bi quoi. ah ok. Hmm. d'accord mais yow Ousmane léeg-léeg euh, nit ñëw soxla kër ñëw wax la ko waxla la bërëb bi mu ko soxla nga doxal ko si ay jéego. waaw loolu moom bari naa yi ma koy defal bari naa yi may jëndal ay terrain yu nekk France ak yooyu xam xam na man moom Ousmane moom lu may dox rek ci jub koy baay waaye duma ci dugg ci caaxaan. mais am na courtier yoo xamante ni euh, du ñu ay courtier yu jub yoo xamante dañuy def ay ay dëng ay ndëngte. loolu nag moo yàq Sénégal loolu moom moo yàq Sénégal mais société boo dem am na yu jub am na yoo xamante ne jubuñu de sa société boo dem yaa xam journaliste yoo xamante ne comme yow métier bi nga yor nii am na yoo xamante ne yàlla xam day na am na yoo xamante ni tam dara yàq mënul leen changé tax ñu changé seen liggéey. loolu tamit am na ci loolu bari na ci. métier mm, bi. d' accord mais est ce que amul ñu ci dugg tamit te waruñu see dugg ci mbi mbéccam euh, wàllum courtage. xam nga courtage moom euh, nekkul fi ñuy jàngee diplôme nekkul fi ñuy jàngee kii bi moom euh, connaissance rek la quoi connaissance rek la même bari na ay kilifa yoo xamante ne ay courtier lañu lam ku lay lijjante marché moom mu ngi ci sa ginnaaw mais du du présenté wu. ok man kon am na courtier yoo xam ne kenn du leen xam. voilà kenn du xam kilifa lañu. d' accord mais mosoo mm. mais mosoo dugg ci wàllum jënd ak njaayum kër ba mbir mi teeree ji yoon ak yooyu. non non non wax dëgg varagement laa parlé. d' accord mosuma taxaw ci yoon moom. wax dëgg mais mais yéen yi tamit Ousmane nee nañu yéenay cheral terrain yi ndax léeg-léeg nit day ñëw jaay loola ab terrain na la trente millions laa koy jaayee yéen ngeen fexe ba koo jaay ay quarante millions ay quarante cinq millions nee nañu yéen wàllum yéen ñi ci dugal seen loxo daal yéen a yokk yi loolu yow lan nga ci ci côté boobu nga wax itam ma la wax oui du ma la wax non. ñaari non du ma ne oui du ma ne non loolu wax Macky Sall la. <laughs> waaw mais loolu moom si <laughs> moom laa ko déggee moo tax man mën naa ci wax côté boobu. moom Macky itam moom sa sax côté boobu war naa mën a xoolaat askanam ni suuf seere Sénégal ni na dayo mu seere Sénégal jege na. daay yéen ñu ne ko seeral yéen yéen a ko seeral. non ak yi ko ko seeral. c'est Euh, li ma la mën a joxe mais bokk ngeen si ñu ko seeral. non non non non courtier waaw c'est ça des fois nit day ñëw ne ko terrain bi de dix millions laa koy jaay waaye duma ci joxe commission dal na ma yoon yoon ma ne ko ah dix millions mu ne ko waaw léegi nag bu ngeen ci tegee deux millions yéen a ko moom bu ngeen ci tegee un million yéen a ko moom mais souvent nga def ko xamante ne góor la nga teg ci un million mu jox la ko. des fois nga def ko xamante ne du gor nga teg ci trois millions mu ne ko noonu duma ko bàyyi noonu boo ko bindul ci papier moom boobaa da koy récupérer xool ko neex mu jox la ko foo ko yóbbu. loolu trahison bindoo ko ci papier quoi. loolu trahison loolu war la de. wala moo tax moo ci gën a bari diggante courtier yi ak diggante bailleur yi jën ak diggante bailleur yi jaay. ah kon yow léeg-léeg nit di nga ko jaayal ab terrain njëggam la waxoon mu romb ko pour yow yaa ko war moom pour euh, sa commission mu mu jël ko tee ko. commission bi comme tey sa téléphone boobu nga yor ne ko bi maa ngi koy jaayee vingt cinq mille. Mhm. waaye téléphone bi boo gisee boo ko jaayee vingt cinq mille nag vingt cinq mille bi dama ci joxe dërëm. Mhm. loo ci teg nag yaa ko moom. ma ñëw jaay téléphone bi trente mille. Mhm. cinq mille francs boobu xam nga man maa ko war a jël. waaw mais su fekkente ne da ngaa ëppale nag mbaa gémmoo yàlla ngay ner waa delluwaat ci wor bi. dèjà da ngay wax ne carrément moom mënu ma joxe vingt trente mille bi moom kii cinq mille francs bi. jëlal deux mille cinq cent bi. mais yow léegi pour mais léegi bu ko bëggee day jël ba bañee itam day jël lam bi fekkente ne yéen ñaar bindante wuñ ci ci papier nag boobaa courtier bi sax mën naa ñàkk. mais mais mais léeg-léeg da nga bindanteeg nit si papier. waaw. d'accord jamono bi moo gën a wóor. waa mais mais tamit est-ce que Ousmane mos ngaa jaayal nit kër euh, lam la waxoon nga jaay lu ko sa pour mu nga jël sa commission normale. waaw bari na. bari na bari na yoo xamante ne déjà duñ la koy jaayal mu ñëw man am na ko mante ne jaay bi li may wax ni yàggul noonu aussi fam bi ba ma waxoon tuuram nga xam ko si li ma ñëwee woo xam ma wóolu ma ah, sama dëkkandoo ki may dëkkal yi ma boolu ma ak moom léegi li mi man maa yoroon kii bi njaay bi man kese mu yekkiti nangam jox ma man ko noo ko man kese la bariwul ay nit te yi ay xele lañu say doom lañu dama leen bëgg a jàppale ci ëllëg yàlla seede na ko noonu laa wàññee xaalis bi jël ci digg bi jël bëccëg bi jox ko ak mucc bi yàlla bi xam na ko. mais mais Ousmane euh, courtier am na xaalis. bon courtier euh, dépasse la am maanaam euh, am na xaalis amul xaalis maanaam li ma lay wax rek dafa nekk métier boo xamante ne daal li ñuy wax ne dundoo yaakaar la ko. Hmm. fixé wul benn côté. Mm-hmm. waaw d'accord léegi euh, bu dee ci wàllum euh, kër yi kër yi tamit euh, nee nañu yéen a seeral studio yi ak appartement yi loolu lan nga ci tontu. non côté boobu nag Macky Sall laa ko koy wax. Macky moo wàññi woon location bi te topp ko. gis nga aussi locataires yi xamante ne dèjà ñu ngi ko koy wàññi woon te diggante ba ba kër gi ak locataire bi nit mënoo ñëw fek terrain seer ciment seer fer seer. Euh, béton seer même maçon bi ngay fay itam mu seer lool. nga tabax sa kër ba pare nga ne ko dinga ko ci wàññi ci nii ak nii. boo ko ci wàññee ci nii ak nii dinga ko wàññi wàññi tak yi nii ak nii. dëgg la waaw. Ah. léegi kon da nga jàpp ne état bi moo tax kër yi cher. moo gën a yokku. moo tax location yi cher yàggul seer Sénégal ni nu mu seeree nii nii nii yàggul. tortu son de captage bi nga dëkkee. Mm-hmm. seeru loolu jamono boobu appartement ay deux cent mosalo ay deux cent mille deux cent cinquante mille diñ may jaaxal des fois client diñ may woo mais dama koy ruus a wax li fi am uh-huh. seeraay bi mais borom kër yi defuñu dara mais war nañu defal yërmande nag xam ne askan bi ñun yëpp a ko bokk ah, mais ah mais comme li nga wax sànq bu dee li nga tabaxee sa kër lépp dafa cher euh, kooku tamit bu tabaxee këram nan la mën a wàññee location bi. loolooy problème bi mais xam nga boo xasee tabax sa kër ba mu taxaw perteto euh, perteto li nga xamante ne chaque at mu ngi dugal génnewul yow mi perteto voilà ah. locataire bi mooy perte boo dekkee ci beneen kër dix ans yow yaay fay cent mille francs dix ans ñaata la. waaw mais mais état bi wàññi na kër yi mais borom kër yi euh, gis naa ne respecté wuñ ko daal te état bi wàññi woon na ah. location bi mais borom kër yi respecté wuñ ko. Euh, lan moo tax loolu. bon xam nga affaire du daal moom jaxasoo na jaxasoo yoo xamante ne diggante borom kër yi euh, diggante borom kër yi ak locataire yi jaxasoo na jaxasoo yu métti man dund naa ko ci am na ay locataire yoo xamante ne seen borom kër dañuy obligé dañuy wax ne carrément lii moom aaraasuñu dañuy yokk kër gi jox leen délai ñu gën am na yoo xamante ne di leen jox délai ñu dem ci yoon ak yooyu wàcc mais de doo mën a comprendre daal day métti torop na la parler métti na ci locataire yi man mii ma wax yow la. xam naa ci dara métti na. mais Ousmane euh, yow da wutal ñu baree bari euh, fu ñu dëkk euh, ndax léeg lekk tamit doo si am jafe-jafe ak ki nga wutal fu mu dëkk ndax léeg-léeg nga wutal ko mu dëkk fenn am fa ay jafe-jafe parfois mu lay woo nga dox digganteem ak agent beeg yu mel noonu ndax loolu du faral di am. bari na bari na des am na yeneen agence yoo xamante ne nag wax dëgg faa la nit yu baax lañu am na agence yoo xamante ne itam wax dëgg yàlla rek a tax may wax nit yu baax lañu am na yoo xamante ne jege na dañu. yan jafe-jafe moo si yan jafe moo si faral di am sa digganteeg client yi nga xam ne yaa leen wan fi ñu dëkk. jafe-jafe bi aussi mu ngi doon des fois nga nekk client di liggéey fi ngay liggéey arrêté nga commencé am arrière assurance bi commencé la di la enseigner pour IGE bi diggante sortie beeg yooyu nag fekkente ne nag yi ma mën a wax seen diggante boo solution am man dinaa ko def ñam xam nañ ci dara li may wax nii. Ah. te yàlla tax. ah di nga dox daal diggante client ak euh, agence yi. ak locataire bi. Ah, ah. waaw. d' accord mais euh, mais li nga xamante ni tamit euh, mooy yéen euh, yéen ñi def yéen ñi def courtage nit bu leen déplacé woo comme nit déplacé la zone de captage pour nga wane ko génn kër Castor day fay déplacement bi. bon ci sama mbokku courtier yi li ci gën a bari ñu ngi ko koy fayeeku mais à personne mosuma koo laaj doo ko fayee ko doon damay jëli taxi ma dem itam buñ ma jox dara ma jël buñ ma joxul itam ma jëlaat sama oto sama taxi ñibb si waat aw ma oto aw ma moto. mais nan ngeen di liggéeyee ak agent yi agence yi. bon assurance ak courtier di mu ngi nekk euh, diggante santage bi assurance moom day fay impôt day fay personnel yu nekk ci bureau yi day fay locataire ke ne moomul kër ga day fay courant courtier nag moom bu ñëwee indi client ci kër gi moom santaas bi ñuy juboo rek moom lay jox pour ceeb bi ñu wàccoo ko. Euh, non xam nga léeg-léeg euh, dañuy wax ne kër gi euh, bu dee ñetti kii la ñuy laaj. ñetti weer ñetti laaj benn bi courtier yi mooko moom. no non non non non assurance du jox courtier benn weer lu loolu moom wax bu daanu ci saretu mbaam la. ah loolu amul ko. non ñu ngi may dégg loolu duñ ko ko def assurance dafa am santaas yu muy teg ay taxes yu muy teg mooy mu ngi jox trente pour cent quarante pour cent. cinquante pour cent ba trente cinq pour cent. ba cinquante pour cent. sans dépend ci taxes yu mu teg ci bureau moom. d'accord mais léeg-léeg mhm. euh, ngeen ngeen ngeen luyeel koo xamante ni moom nekkul agence comme nit ku am borom këram moom këram dëkk ci suuf war a luyee li si des bu gisee ku mel ni Ousmane kooku moom bu dee ñetti weer la courtier bi mooy jël benn weer bi wala du demee noonu ba tey. waaw boobu ba courtier bi moo jël benn weer mais ba doon kër goo xamante ne agence yoru ko. Euh, borom kër moo ko seeral boppam booba client bi fekkente ne ñëw na waxtaan ak courtier bi courtier bi am na lu mu ci mën a teggil ko. Mhm. léegi mm. euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM. loolu euh, defal naa ko ay nit yu bari. aha mais mm. yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission petit métier tey ñu invité Ousmane Diouf muy courtier boo xamante ni nemmeeku nañ ràññeeku nañ ko lool ci milieu bi mais jafe-jafe yi na daal Ousmane ci mbir mi ci courtage. lool lool bana ci sama mbokk yoo xamante ne des fois ñu jël xaalis jàmbur daw ak moom ñu di ko wër balaa ñu jox ko appartement bu xamante ne luyee nañ ko di jël xaalis boobu daw ak moom bu di ko wër man bari naa ci ay clients yu bari bari xamante ne diñu maa woo di ma réclamer yu mel noonu ci sama ah. mbokk courtier yi ah, war nañu xoolaat suñu bopp itam ah client joxub euh, courtier xaalis courtier bi daw xaalis bi bari na mhm. na lool mais lu waral loolu ñàkk jubate waaw ah, jub bi moom xam nga jub bi moom fépp la. ci ah, entreprise ba mënta dem rek am na yu jub am na yu jubul. léegi lan ngay wax sa mbokku courtier yi Ousmane. ah ñu ngi gën a xoolaat suñu bopp rek di gën a góorgóorlu am liggéey courtier moom nekk na liggéey boo xamante ne noobul la mais aussi war nañ ko mën a góorgóorlu daal bu baax a baax. Mhm. xoolaat suñu bopp li nga moom nga jël ko li nga moomul nga bàyyi. léegi nan la nekkee liggéey bu noobul Ousmane. ah mais liggéey bi xam nga mooy li ñuy jàngi français yow jàngoo français li ñuy dem école yow demoo école bi yow da ngay toog nii sa kër boo nit néew ko damaa soxla nangam nit gis euh, nga nga jox ba gis locataire wala sa collègue wola la ne ko am na appartement Castor yow nga déclaré woo ma ne appartement amoo ko ma ne am na dima ko wax Castor kaa ñu dem xool ko. Ah, waaw xam nga loolu itam coono boobu mitiwul noonu quoi. Mm-hmm. voilà mais est-ce que du liggéey bu yomb aussi. mo yoom na yombul c'est que pression ci nekk moo bari yoom na yombul ko yan pression moo si ne. pression bi ci nekk moom dèjà client yi lay woo kii ba ko amalul mën na laa mën a jàpp ne di nga am locataire bañ ko koy wax ak yooyu quoi. Mhm. comprendre nga. moom même dembu rek am na benn femme boo xamante ne Kër Masar la jógee dafay dawal oto xaw ma ko fu muy liggéey ci banque boobu lañ ma ko booleeg moom ku ma ku booleeg moom man maa ko lu yemee xaw ma ko nag carrément nu mu ñëw di laajte laajte laajte laajte ba fekk ma fi may kii noonu moo ma ne Ousmane Diouf da laay laaj mu ne ko ah fii la nekkoon de xaaral ñu jox la li ma dugg mu ne ko yow laa soxla ma ne ko lan nga doon mën naa far sama aw ma ah, ah, fi ma ne ko ah soxna si li fi nekk fi de xaw a seer de mu ne mën naa fay ba nangam li ma wax ne mën naa ko fay nag ak li fi nekk xaw naa wute. mu daal di demaat euh, ci côté Elton bi ñu waat ko ne ko xaar ma boole keneen moom mu ñëwaat bu ci man mu ne ko yow da ngaa am appartement bañ ma ko wax man yàlla xam na ko kaa ñu dem bu ci nekk ma jox ko numéro hasard demb demb demb demb demb ku ci nekk jox naa ko numéro hasard bi mu déggante ak bi jéem naa wàññi ba nag son affaire bi déggal ci ñoom. léegi léegi euh, Ousmane fan moo gën a cher ci Dakar. Dakar dafa cher fépp a cher bu nekk ak li ñu tolloo rek la ñu luye ñun mënuñu tolloo ak euh, waa Almadi location waa Almadi ak waa Cité Keur Gorgui mënuñu tolloo location waa Mermoz Fann ak zone de captage mënuñu tolloo mënuñu tolloo. location mais est-ce que zone de captage mais Ousmane léeg-léeg benn client boo xam ne euh, ay at wala at yu bëree bari saa soxla soxlaa fu mu dëkk yow lay woo ndax relation boobu am nga ko ki client. bari na bari na du xaaj bi waxtu xaaj du jeex su bar fakka la mhm. bar na yoo xamante ne moom wax dëgg faa la boo leen wax dañu ma wax ne yow laa bëggoon nga wutal ma yow laa bëgg nga wutal ma lu loolu ñu ne di may woo di ma wax booleeg seen jabar wala xamante ne déjà seen paiement de location bi sax man lañ ko ko wiire ma dem fay ko dem fay assurance bi ou ma dem fay borom kër gi ñëw jox jabar bi rosi bi wala ma jox njabootam rosi bi ñu denc rosi bi bari na mhm. mais léeg-léeg euh, am na client yu xaw a naqaree lijjantil aussi Ousmane. c'est ça client yu xaw a naqaree di ret. c'est ça du question naqar di ret mais des fois da nga am qualité ci nit dem boole ko ak nit mu bañ a fay. loolu moo ci gën a am problème bi nii. ah yéen yéen courtier da ngeen di boole euh, nit ak agence. oui. mu dem ba si digg ba du mën a fay. du fa du fay. Hmm, après. boobaa yow mi tam courtier bi des fois da nga ci am man ba doon man ak personne dama ci am kersa. donc damay jàpp ne Euh, borom asar bi souvent day jàpp ne kii xamoon na kii du fay dèjà dafa nangam ak nangam moo tax côté boobu nag laa amee ker sax quoi man moom ba ma sañoon client bu may booleeg nit moom amoon ci jaaraat foofu di wax client bi dama ci am benn jafe-jafe. mais léeg-léeg est-ce que client dina ñëw si yow nga xam ne kii kat ma may wutloo appartement wala wala studio euh, euh, zone de captage waaye xam naa ne kii nii ma ko gisee njortu naa ne bu fi dëkkee ñaari weer ñetti weer dootul man a fay ndax léeg-léeg di nga ko di ko mën a natt yow ku yàgg a jëflanteeg client. no xam nga fii Sénégal lañu ñu nekk Sénégal euh, déjà am na ñoo xamante ne yor nañu lu du wuñ ko ci seen yaram wane wuñ ko ci seen melokaan am na ñoo xamante ne itam yoruñu dara mais boo leen gisee da nga yaakaar ne kii lu mu yor xaajul boy jeex te fekk na itam mooy loolu moo tax affaire bi dafa naqaree comprendre dafa naqaree comprendre kon Mhm. mais yow euh, lu jëm ci wàllum euh, location bi tamit euh, nee nañu étranger yi bokk nañ si li tax mu cher yéen courtier yi étranger yi ngeen gën a sawar ngir wute leen appartement. loolu non non man moom ah, man moom à ah, personne sawar ma ci étranger boo bëggee dégg rek man osaas yi may luyee yëpp nañ ma yi may borom kër yëpp mën nañ ci treize man am na yoo xamante ne étranger moom sawaruma ci ñoom wax dëgg faa man suuba boo leen laajee di ma dañ ñu lan moo tax sawaroo si. non xam nga nit moom boo xëcc moom da nga xëcc jëmale ko ci sa askan mais bul xëcc jëmale ko ci sa as sa étranger loolu moom ah, doo waaw mais nee nañ euh, étranger yi euh, ñoom ñooy tax léeg location de chair ci yenn bërëb yi ndax lu Sénégal yi lànk c'est que seen étranger étranger yi surtout étudiants leen wax ci location fekkente ne deux cent mille la Sénégal bi bu ñëwee mën naa wàññeeku di waxaale mais étranger boo ñëwee rek waaw bu ko arrangé rek aussi di koy fay rapidement deux fois itam du yoral borom kër gi arrière quoi fu côté boobu moo tax yeneen borom kër yi di taamu étranger yi am na beneen kër goo xamante ne mu ngi côté liberté si vraiment nee na du ko jox Sénégalais. Ah, lu tax sen seen capital bi am na nee na doon carrément étranger moo ko gënal. ah kon am na ay borom kër yoo xam ne duñ duñ loué sénégalais. waaye. mais est-ce que loolu yow rafetlu nga ko. ah non non non que la parle rafetlu lu mako rafetlu ma ko nag. lam nit moom ak lu miti miti miti miti rek nga jëmale ko sa askan moo gën jëmale ko yeneen o jàmbur. mais Sénégalais yi bu ñu fay location dañoo war a fay location aussi. non Sénégal yi des xam nga Sénégal dafa bari programme tey tabaski yaa ngi jublu korite yaa ngi jublu nangam ak nangam su moom étranger yi côté boobu bariwuñ ci ay kii ay yeneen xew sew sewat yooyu moo tax suufa Sénégal yi des fois day booy nar a yor sa salaire nar a fay sa dund nar a kii nar a lii nar a fay lii nar a toppatoo xale yi bugg a bi dèjà da nga am am retard quoi mais bu doon sama locataire ma xamante ne dama leen luyee dama leen comprendre. ba doon xamante ne kër yooyu man maa ko yoral sama bopp di ko fayeeku man dama leen comprendre ci effectivement jote jotee. d'accord mais Ousmane fi mu ne euh, ndax am na ay kër yu bari yoo xam ne déclaré nañ la ko euh, ngir ko bëgg jënd kër. waaw bari na bari na bari na bari na ñu ma déclaré yoo xamante ne seen borom duñ koy jaay bari ko déclaré yoo xamante ne tam duñ ko wax seen sama mbokku courtier yooyu wax ma ko. d'accord mais Ousmane dafa mel ni métier mi yàgg nga ci. waaw sa sa xaw naa ci yàgg. def nga si ñaataat. ut euh, na quinze ans. def nga si quinze ans. Hmm. mais euh, bi nga si defee quinze ans Ousmane lan moo la ci dugal aussi. Hmm. métier bi aussi. man li ma fi doog a ñëw zone de captage mais bar laa doon def a fekk euh, ki ñuy wax Modou Gueye bu dëkk Castor ak ki ñuy wax Pape Sila ñoo ma dalal zone de captage boobaa zone de captage bi ay àll la woon barewuloon kër dèjà am na saret laa doon kii nu mu ne ko da ngay indi sa saret dëkk ba di ñu roñal ciment ak suuf ak ndox boobu ndox amaguloon zone de captage bu ñu naanee ndoxu robina dañuy dem si DSO mbaa ñu dem Grand Yoff jënd fa ndoxu pompe la ñu doon naan mooy pompe yi ñuy gas ma libre ciment bi libre béton ak yooyu am yoo xamante ne nag dañuy tabax seen kër denc waale ma ko ma ko denc waale nag des fois nit ñëw ne ko location laay war mu ne ko demal ci jiw moo xam kër yi pare ak yi pare lii moo ma ci dugal ci confiance. mais euh, mais rëccu woo ko. non sant yàlla rek sant yàlla rek nit moom ci loo nekk rek am ci jàmm ak salaam rek sant yàlla quoi. waaw mais léeg-léeg di nga posé wu question lan moo ma dugal ci lii. bu démb doon tey mën naa cee bañ a dugg ngir jafe-jafe yeeg yi ma si jàgga jànkonteel ndax liggéey bu nekk nag am na ay risque ñàkk ñàkk liggéey rek ñàkk ci li ñu rek ñàkk ci li ñu jàpp rek moo tax ñàkk ci li ñu jàpp mais yéen ah mais yéen courtier yi tamit euh, est-ce que mun leen woon wut benn benn kuréel benn association boo xam ne euh, danañu leen reconnaître ñu def ko les courtiers du Sénégal. loolu nag moo gënoon loolu nag moo gënoon c'est que moom courtage moom état xamu ko. loolu moom aussi mo genoon quoi. mais état war na ko waroon na ko mën a xam nag. waroon na ko moom laa la wax waroon na ko mën a xam du fay impôt comme yëpp loolu moom c'est normal d'accord naa ci loolu. d'accord te mënoon a am moom naa ci quoi. d' accord mais euh, société sénégalaise bi tamit ni ma ko xamee est ce que jox nañu gëdd wala jox nañu respect kiy def courtage. non non non non du 100 pour lu tax loolu lu waral loolu lu waral loolu. jikko sénégalais ma mel noonu. dañuy jàpp ne yow daal li ngay def dafa yomb wala liggéey yow daal. voilà c'est ça quoi. te alors que mm. yéen li ngeen di def da ngeen di daan seen doole. dañuy daan doon soole moo gën sax moo gën moo gën tappale non am na ñu leen di ñu leen di xeeb yooyu sax yi bu bu weer yu sare sax yéen man ngeen leen a dimbale. bari na man man bari na damay dox ci mbed bi nit woo ma collecté na ma oto ma gëstu moo dugal loxo ci poche yëkkati dara jox ma ko man dèjà sax tuuti ma ko xam mais lu baax bi ma ko defaloon moom la may fay noonu. Mm-hmm. Mm. mais yéen am nga si ay nit daal ci biir liggéey bi. macha allah macha allah am naa ci ay kilifa yu bari bari bari bari bari bari bari bari yu xaaj bu ñu bari daal yéen mhm. mais xam pourtant moom boo ci nekkee. Mhm. kilifa bu nekk ngay xam. gën a bari yëpp ci bi nga xam. terrain mënoo ko jaay te jaaro jaaroo ci courtier. boo jaaree ci courtier nga jaar ci asaas asaas ak courtier benn hmm, am papier toog courtier bi amul papier toog loolu mooy problème différence bi. mais yow euh, la la jàngal ci sa àdduna ci xame bi nga xamante ak ay kilifaak problème yi nga siy jànkonteel façon nit bu nekk nga jëflante. ak moom yooyu ngay gën a yeew chaque jour gis loo chaque jour da gis loo xamante ne euh, du gis-gisu démb bi quoi di di nga ci gën a yee chaque jour daal. dina la dina la si euh, euh, dina la si am lu la si yee daal. waaw dina mais est-ce que pour nga def courtage courtage laaj na laaj na noppi laaj na nit ku am secret. naaj na. nit ku noppi daal nit koo xam ne da ngay moom sa làmmiñ ndax léeg kilifa dina bëgg a jënd terrain. du bëgg du bëgg ñu xam ne moo ko moom wala mu dëkk fenn. du bëgg ñu xam ne fii la dëkk. bari na c'est ça bari na euh, day jëf dara moom am na loo xamante ne c'est ça quoi bari na. mais kur ci dafa war a téel a téel làmmiñam nit ku secret am secret la war a doon. loolu barul bari wax courtier nekkul loo xamante ne day wax courtier lu moo xam ak taximaan ñoo yem. Ah. voilà lu moo xam ak taximaan ñoo yem. li ñu xam ci dëkk bi moom bar bari na ñoo xamante ne yàlla baax na daal mais daal dafa war a noppi daal warul nekk koo xamante ne dafa bari wax. dafa war dafa war a wax. voilà wax baaxul encore. ak fu mu mënta dugg daal wax baaxul. d' accord jërëjëf euh, Ousmane euh, Diouf euh, ñoo ngi lay sant vraiment di la gërëm di kontaan ci nangu bi nga nangu invitation bi jërëjëf Ousmane. maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax. Hmm. di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal. yàlla yokk rajo bi bu mu gën kawe. jërëjëf. ngeen fekkee njëriñ bi. rawatina waa Sénégal jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, Ousmane euh, Diouf euh, mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission petit métier ci rajo réew mi FM 97.5 ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox dig dajee samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay